siiw yi ñoom ñaan mbokk yi ñoo bokk waxtaan wi yi wax na ko juñu na ko ki ñu war a waxtaanee mooy le roi sax la ñuy wax Balla Gaye numéro un waaye balaa ñoo tàmbali dugg ci waxtaan wi champion maa ngi lay nuyu dalal la ci Bantamba. jërëjëf Modou Mbaye maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ziar. di nuyu suma papa Bécaye Mbaye mm. nuyu Sénégal yëpp. Mm. maa ngi am kontaan ci waxtaan tey bi nga xamante ne. Mm. waxtaan bu am solo la pour réew mi pour sénégalais yi. Mm. pour aussi tamit pour gouvernement pour ñëpp ci doomu aadama. Mm. parce que lii ñuy waxtaanee tey ñun ñëpp ñoo ko bokk. parce que àdduna moo ñu déglu sénégalais moo ñu déglu. Mm. ba tax na maa ngi julliwaat si yonent bi sallallahu alayhi di sant sumay ñaari waajur di sant suma sëriñ sëriñ Basiru Baara. di ñaan yàlla yàlla na yàq leeram taaf na ci barkeem. di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu supporteru Balla Gaye numéro 2 yëpp fépp fu ñu mën a mhm. balaa ma wax dara aussi tamit di jaale Papa Bouba Diop. kon mhm. ni nga ko wax international la. Mhm. kenn ku nekk mën nga ko jaale sa bopp. waaw ndax bëggoon na sénégal yi moo xam Sénégal la moo xam club bu mu nekk la. kon àdduna la yàgg bi. di jaale aussi tamit vraiment Daouda Seck. mooy nga xamante ne suñu mag. suñu xarit suñu lépp. di ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko amiin di tamit famille Sakho. mooy mm. suma papa vie. Mm. Euh, sama magu papa la. dafa génn àdduna yàlla na yàlla yërëm te xaare ko di ñuy Sénégal yëpp. di jaale aussi tamit. Euh, mm. waa Malfara ak waa Sédhiou ak waa Bignona ak waa Casamance. rawatina nag di jaale sama bopp personnellement. ak sénégalais yëpp nag vraiment. muy suma papa di suma xarit. di suma lépp muy bàyyi Balla a un di ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom yërëm te xaar ko àjjana yi gën a ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf amiin macha allah am na solo dégg ngeen kàddu yooyu muy lu am solo mbokk yi dañuy dugg directement ci waxtaan wi mhm. wax nañ leen ko Bantamba la saa su nekk rek semaine bu jot ñu ànd ak yéen béggalante ak yéen ci làmb béggalante ak yéen ci li nga xamante ne ni moom mooy actualité mais actualité waxtaan wi balaa ñu koy tàmbali dañuy dugg ci bala li xew en ce moment dans le monde. Mhm. wala au Sénégal sa ay moroom sa ay raq mhm. ñi ngi ñi ngi ñi ngi songu mbëkk mi. Mhm. bu nu waxee mbëkk mi ñu ngi jël gaal yi. di dem te yaakaar naa ni li leen tax a jug saa yu ñu tàllalee Balla Gaye micro ci ay jamono mu ne looloo ma tax a jug. dimbali sama yaay. loo wax ci loolu. waa di leen ma saw di mm. leen ma saw aussi bu baax a baax. ñu ci jot a génn àdduna. ma xam naa ci suma benn xarit bu jotee gënaat ma ko ci mel ni Ablaye Pël ndax mm. lees numéro 2 la mm. ci gaal gi la dugg si tamit ba yàlla dogal mu ñàkk bakkanam di ko jaale Sénégalais yëpp aussi tamit di jaale képp ku ñàkk bakkanam ci gaal gi mm. ndax euh, benn Sénégalais bu dugg ci gaal bi yaakaar nañ Sénégal yëpp dugg waaw kon ñoo ngi leen di jaale aussi di leen masawu seen waajur yi waaye di leen ñaaxaat rek ne àdduna dara xewul sotti du benn fan du ñaari fan nit mënu xëy xëy rek am nga la nañu góorgóorlu xippi seeni bët xool ñi nga xamante ne ay nit ñu baax lañ ñi nga xamante ne dañ leen di dégg ñuy nettali seen jaar-jaar fu ñu jaar metti na ñi dañuy xëy du ñoom lu ñu lekk ñi dañuy xëy du ñoom lu ñu naan teew lu ñu gëm mooy sama réew laay liggéey mm. liggéey lu ma yàlla jox ma xam ni noonu la dinaa liggéey ba ñëpp ràññee ma dinaa liggéey ba am mën a dimbali sama waajur mais pas dugg ci gaal. Mm. neexul nag mais nag maa ngi leen di conseil aussi ñu bàyyi gaal gi ndax gaal amul benn njëriñ dem ci risque amul benn njëriñ. Mm. maa ngi leen di ñaax li leen wax ne dañu toog te dal te xam ne lépp lu mun ñu mën a am ci àdduna seen réew na leen ko gënal. Mm-hmm. ndax boo wutee boo amee mootu sa réew ngay. koy dëgg la dëgg la. mais aussi tam nañ fexe. Mm-hmm. découvrir dëkk bi fexe liggéey ñafe te ànd ak tuuti dara rek incha allah li ñu bëgg yàlla mën na leen ko defal. macha allah li ñu bëgg yàlla mën na leen ko defal mbokk yi en 2005 la ñu déggaat turu Balla Gaye mm-hmm. mu delsi ci làmb. laata 2005 tur bi jiitu woon na numéro 1 bi. xamuma ko. ma li nga xamante ne ni moom mooy carrière am waaye la grand maître HBK. Balla Gaye numéro un la ñuy waxtaanee. Mhm. kan mooy Balla Gaye numéro un. waaw